Euh, absence Sidi Lamine Niass ñaari at ci euh, ñaari at ci suuf euh, tey ji yéen ñi nga xamante ni yéen ay employé yi naka ngeen koy waaw moom de si Lamine dem na yaa ñaari at mais ba tey dafay mel ni comme si mi ngi soog a dem Euh, du ñu xaar sax ba anniversaire muy soog nekk suñu xel à tout moment mi ngi nekk suñu xel je pense que yow bi rek ba ngay dugg si kër gi war ngaa mën a jàkkaarloog portelem bi nga xam ne boo duggee si yow mu lay ba ni ngay si escalier yi da mel ni mi ngi lay xool man mënumaa dugg si kër gi barki yonent bi te jàkkaalu ma ak moom ñaanal ko sàkku si moom mu ñaanal ma te gëm naa ne ni ma koy defee amaana ñu bari itam noonu dañu koy defee parce kenn la woon de presse la woon si ñun daf ñoo yàlla daf ñoo tàggat si lu baree bari daal euh, moom daf ñoo manqué si lu baree bari may nag bon àddina noonee rek la demal ak maa ngi ñëw la ñaana ko yàlla yërëm ko te yéexuñu yàlla yokki leeram taaf ñu si barkeem si Lamine du ku ñuy fàtte kenn ku nekk amal na la njariñ gisuma kenn ku naan man si Lamine amul ma benn njariñ waxul leen loo xam ne jëmal na sama liggéey si kanam wala jëmal na sama nekkin sama kanam lim ñu mës di dénk rek mooy saa su ne ñuy fexe dëgg doon suñu doole heureusement loolu dafa nekkoon si ñun moom parce que dëgg dafa baax du dee dëgg mooy njëkk te mooy mujj li am solo ba am solo mooy li may ñaan li nga xam ne bëggoon na ko dama ko waxuma ko pour personnel bi rek si laa bokk nañu jéem def suñu kéntalaay kattan li mu bëggoon ñu ànd si ak moom lépp loo xam ne bañoon na ko doo woon nekk woon bëgg-bëggam parce que mosul bëgg askan wi yëpp ñu parce que askan wi nee na mooy suñu patron kon kooku je pense que war nañu bàyyi xel ci li mu bëggoon war a bàyyi xel itam ci li nga xam ne moom la daan bañ ñu jéem a def suñu kénte lay kattan parce que damay wax ne jiw kiy dund sax baaxul waxtuma laa jiw kiy dee ñu ci bëri ci employé yi nee nañu euh, Sidi Lamine dafa fonkoon lool amoon yërmande ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon jigéen ñi rawatina daal leen jàppale ci bërëbu liggéey bi liggéeyukaay bi euh, tey ji yow mi nga xamante ni jigéen nga nekk fi tey nooy dundee. waaw loolu moom lu am la lu wér la moom dafa daan wax saa su ne mun su ko nëbb kenn day wax ne man damaa fonk ndaw damaa fonk jigéen man ba may ñëw fii xale laa man moom laa toogal personnellement ñoo ma woo ma man yàgg fi lool parce que 2006 laa fi ñëw xam nga ne 2006 ak léegi yàgg na ba may ñëw nekku moon si bërëb bi ba ñuy ñëw fii fii fii fekk pareegul parce que man Sacré Cœur laay ñëwee rajo bi ñuy ñëwee ba tëjandoo télé bi kon daf ma tàggat si lu bëree bëri ndax bu ñu amal réunion euh, balaa muy dugg si li nga xam ne mooy mooy ordre du jour bi faw muy indi ay anecdote jàngal ñu lu bëri fàttali ñu ñu bëree bëri ndax fekkee ñu jamonoom kon kooku je pense que bu demee dina am lu muy lu muy manqué man première réunion bi nga xam ne euh, Sidy Lamine woo woo nañ ma ko après décès Sidy Lamine non dama doon jooy dama doon jooy madame fay ba mu ne ma parce que dama tàmmoon madame Faye woo ma ne ma madame Ndiaye président nee na am nañu réunion lundi wala jeudi 15h. première réunion après son décès madame Faye m'appelle pour mu di ne Thiaba ba avant mu may wax rek man li naa jooy mu ne ma mais Thiaba boo defee nii man nan laay def parce que tam day waaw dafa triste dafa dafa fonkoon ndaw ak jigéen comme ni nga ko waxee parce que da lay responsabiliser. ay nit ci nga former leen moom da lay wax ne ah boo wooloo rek wóolu naa leen ma ne kon ah li nga def si man rek loolu lay jéem a def si ñoom xaw ma dara de parce que animation chaque jour que jëfee ab njàng la àddina kenn du wax ne man mën naa lii fii laay jeexal naa mokkal kenn du ko wax xanaa ku ñàkk xam chaque jour que jëfee ab njàng la. may ànd ak ñooñu tàggat leen tàggat nekk ak ñoom di liggéeyandoo di dóorandoo moom mu bàyyi la rek ak si liggéey toog di la seetaan bu félicitation jotee bu la waree félicité mu félicité la bu waree am lu mu lay reproché itam dina la ko wax mais daal ku ñu bëggoon la ku ñu soppoon la ñun tam cofeel googu noonu lañ ko amee si moom wax dëgg yàlla. man maa lay jaajëfal bu baax jaajëfal waa jàmm ji info ànd ak noonu seen internet yi. Euh, sëñ Abdoulaye Bob euh, a baax Euh, di jaajëfal waa jàmm ji euh, info point net euh, ñu ñu am begte ci seen teewaay fii ci groupe Walfadjri di leen jàll ku ñu bokk di El Hadji Sidi Lamine Niass. Abdoulaye Sidi Lamine Niass wuti ju boromam am ñaari at ci tey ci kaw suuf yéen ñi nga xamante ni nekkoon ngeen ak moom yàgg a liggéey ak moom tey ñu leen di ñuy bokkaatak ak yéen nakar bu baax a baax tey absence Sidi Lamine ci yéen. waaw absence bu metti la ndax ka nga xamoon. Euh, nga doon bokk ak moom jotaay doon bokk ak moom lu yaatu mu la doon xelal mu la doon gàgganti ci métier bi di lay won yoon di lay wax bu ma sañoon kooku tey boo demee ba mu génne àddina wéetaay day ganee si groupe bi surtout ñun ñi nga xamante ne euh, fu ñu yëg si tey di Lamine béy na ci waar wu yaatu euh, bàyyil ñu nag ak loo xamante ne dootul fay ba mukk muy wal fajiri di baatu askan wi tey bu ñu gisee mbooloo mi daf ñuy fàttali Eh, na mu demee woon bëccëg boobu 4 décembre 2018 fii kenn mënutoon fi jaar ndax xam nga Sidy bésam moo toll noonu ndax jëf day feeñal bés waaye bés day feeñal jëf eh, Sidy Lamine béy na fi waar wu yaatu jëf na fi lu yaatu loo xamante ne eh, dootuñ ko fàtte rawatina xam nga yenn saa nit génn àddina ñu suul tey dañu delluwaat lépp suñu borom xam ne moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat terewul itamit suñu borom teg na loxo ci kër gi muy wal fajiri nga xamante ne eh, moo ko moo ko jëmbat moo ko roose ba mu meññ tey ba ñu bëri tey ñu ngi am sutura ñu bëri tey ñu ngi leen di dégg fu ne wal fajiri la jaar mooy célèbre bi yoon mooy la locomotive de la presse sénégalaise. Euh, mu am ñaari at ci suuf mu mel ni euh, tey la wuy ju boromam euh, Sidi am na loo xamante ni dina ko sénégalais yi te ba tey fàttewu waaw fàttewuñ ko ndax léegi bu ma doon def wax sa xalaat léegi ci ci Walf FM laaj boobu ma samp mooy euh, askan wi lan ngeen jàppoon wala boog lan ngeen jàppoon ci dundu Sidi Lamine ak ci jaar-jaaram ci kaw suuf euh, bokk na ci tamit réew mi bu ma saan toll fii ndax yaakaaroon ngeen ne Sidi Lamine mun na cee béy waar wu yaatu donc ñu bëri kàddu gi doon benn ne bu fi nekkoon wala waxoon na ko fi yow mi yëngu ci wàllu réseaux sociaux yi waxoon na ko. junjoon na ci askan wi donc alerte la doon def di fàggul askanu Sénégal ci fànn wu ne di leeral askan wi ci liy ñëw ëllëg loo xamante ne xëy na askan wi amuñ ci xam-xam wala ñu ngi ci sikki saakas yi di mooy taxaw jël kàddoom jël xalimaam ñeel sénégalais yi yeewu leen lii moo xew te bu ma sañoon donc tey lu bari mu ngi xew ci réew mi euh, dañu gis ne la voix de sans voix moom la duppee tey wal Walfadjri waaye moom Sidi mooy la voix des sans voix mooy kàdduk askan wi tey askan wi jooy nañu wéet askan waa ngi ci ay tolof tolof euh, bëgg nañu ku leen taxaw bëgg nañu ku leen gindi bëgg na ku leen gàgganti bëgg nañu ku leen xamal waaye kookee ñu yaakaaroon démb barke démb moo sori gët yi waaye nag ba tey mu ngi jege euh, xol yi du fi jóg ci xol yi. Mhm. ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf jërëjëf yàlla barkeel lépp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ndax mënoon na leen ci bañ a fekk waaye gis ngeen ne Sidi Lamine ak taxawaayam ci presse bi. dafa doon euh, liggéey lu yaatu ci démocratie démocratie da ci am solo ba tax na am na benn prix El Hadji Sidi Lamine pour la démocratie et les droits de l'homme Euh, donc prix boobu chaque décembre ay scientifique ñoo ko nas ba taxawal ko ne chaque décembre ñu xool ci réew mi koo xamante ne fës nga ci wàllu démocratie yor nga ci waar wu yaatu ñu jagleel la prix boobu pour mun sénégalais kenn ku nekk jàpp ne réew mi sa réew la démocratie bu doxee tey am nga ci wàllu gu yaatu liberté de la presse liberté d'expression Sidi Lamine Niass da cee béyoon waar wu yaatu kon tey eh, bu ngeen bàyyi yitte yeeg soxla yi ñëw fekk ñu fii ci Walfadjri eh, def ko ci seen kër Euh, loolu dañ leen ci delloo njukkal ndax yëg la euh, cër la te itamit euh, cofeel la maa ngi leen di jaajëfal yàlla gën a yokk sit bi mu doon ay télévision télévision ndax lii lañu bëgg ci ci liggéey dafa am solo jërëjëf jërëjëf. jàmm